Bonjour, c'est Madame Thioubou, conseillère en développement des entreprises à la Chambre de commerce de Thiès. Ah, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir euh, au sein de l'institution consulaire Madame euh, Kébé et monsieur, Madame Kébé, la directrice de Diokalante, euh, et Monsieur Babacar euh, euh, euh de Diokalante qui sont venus aujourd'hui nous présenter une plateforme euh, qui est dédié au, à, qui renforce aussi l'appui encadrement des filières porteuses. Euh, donc, euh, on s'est vraiment réjoui de cette présentation qui va beaucoup porter ses fruits à l'endroit des opérateurs économiques euh, et organisations professionnelles du Sénégal. waaw merci euh, Jokkalante comme ni nga ko xamee ñoom organisation lañ boo xam ni dañu yëngatu beaucoup di yëngatu lu bari ci organisation de yi ak organisation professionnelle yi. ak aussi dans l'éthique et le numérique léegi nag avec la révol ak révolution numérique bi dañoo indi lu bees muy benn plateforme boo xam dañ ko indi tey partagé ko ak chambre de commerce mu nekk lu rafet loo xam ni dina am njariñ lu bari ci askan wi. merci beaucoup moi c'est Ndeyami Kébé je suis la directrice générale de de de Jokalante. Jokalante est une entreprise sociale qui a mis en place euh, une plateforme innovante. qui permet de communiquer avec les acteurs de développement. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est dans leur langue locale. Euh, actuellement, nous savons qu'au Sénégal, plus de presque 60% parlent les langues locales et ne parlent pas français. Et Diokalante a jugé nécessaire de mettre à disposition un outil qui permettra à l'ensemble des institutions des entreprises de pouvoir mm, discuter et communiquer avec ces acteurs dans leur langue locale et pouvoir aussi recueillir les retours de ces acteurs pour une meilleure interactivité entre les organisations comme la Chambre de commerce et les usagers. Alors, quel est l'impact qu'on vit, c'est une dimension inclusive. Déjà, comment travailler avec l'ensemble des secteurs et des acteurs, que ce soit le paysan, le pêcheur, l'éleveur, en prenant en compte son niveau d'alphabétisation et en prenant en compte son outil, que ce soit un téléphone portable simple comme un smartphone. Ça, c'est comment impacter au maximum ces populations-là et aussi impacter des organisations comme la Chambre de commerce en termes de transformation digitale, en termes d'innovation, pour pouvoir mieux interagir avec leurs usagers. waaw man maay Ndey Ami Kébé di jiite kuréel bu ñuy wax Jokalante Jokalante di benn euh, entreprise boo xamante ne ci lépp loo xamante ni euh, jumtukaayu xarala yu bees yi la ci lay liggéey donc ñu ñëw tey ci chambre de commerce pour xool suñu ñaari euh, kuréel yi naka lañ mën a liggéeyee pour gën a mën a gën a mën a ñoŋal euh, liggéey bi chambre de commerce di def ak usagers yi ak entreprise yi nga xam ne ñooy liggéey ak chambre de commerce waaw. waaw jeexital bi mën a am mooy ni kenn dootul des ginnaaw ñëpp dinañ mën a liggéey ak kuréel yu mel ni chambre de commerce sans xalaat ne dégguma nasaraan donc làkk boo mënti làkk nga soxla service chambre de commerce di nga mën a ñëw mën a liggéey ak ñoom te doo ci am benn complex te loolu jeexital yaakaar naa bu am solo la ndax booy seet soo jëlee téeméer Sénégal presque euh, juróom fukk ak fukk wala juróom benn fukk yi duñu duñu làkk nasaraan te donc am jumtukaay yu mel ni jo plateforme Jokalante dina indi jeexital boobu ci ci ci ci nit yooyu yëpp nga xam ne ci ci dëkk bi la ñu bokk